seneinfo.com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 moom ak bi ñu bëggoon a def ca Mbàkke tey ji Vox ngi ñuy xibaar ne préfet bi dëkk ba aaye na ko waaye Ousmane Sonko nee ca Mbàkke fa lay jullee ajjuma tey bu fa jugee day jawale